asalaamaaleykum mbokki Thiès ak li ko wër bu ngeen ma déggee xam ne lu bees tàkk wàcc na ci benn dëkk ñaari gaar sëñ Xaadim mi nga xam ni moom la ñëpp di xaar moo agsi nag euh, biir Thiès arène jeunesse sécurité ñu déglu ko c'est l'avenir d'un pays te jeunesse bi tey bëri na ci ay jeunes yoo xam ni métier sécurité dañ daf dañ ko bëgg te métier sécurité du ay caaxaan boo koy def aussi da nga war am qualification professionnelle loolu moo tax arène bi sécurité jóg bëgg tey Sénégal bépp gox boo xam ne rek ay jeunes ñi ngi fa yoo xam ne tey métier sécurité neex na leen bëgg na bëgg nañ ko arène bi sécurité former leen mais du former rek yam ci da leen di former ba pare di tàllal loxo état secteur privé bi ak képp koo xam ne rek tey bon volonté nga pour mu jàppale ñu pour dañu war a am une bonne formation ba bu ñu demee tey ci marché yi wala tey ci population bi xam na la ñu comporté ak ñoom formation yi nag am solo parce que tey boo xoolee formation sécurité dafa yaatu mais man dama ko yaatal ci ay filières yu bëri tey boo xoolee jàngale nañ fi civisme jàngale nañ fi secourisme jàngale nañ fi développement personnel te développement personnel moom mooy lépp jàngale nañ ci garde rapproché jàngale nañ fi ISAG jàngale nañ fi comité de vigilance jàpp naa ne yooyu yu rich la yoo xam ni tey arène bi sécurité dafa jóg pour yaatal ko Sénégal ñu am benn convention bu ñu xaatim boo xam ni bëgg nañu état du Sénégal jàppale ñu parce que ndaw ñi dañoo bari Sénégal te bëri li tax ñu jël yoonu Nicaragua bi di jël yoonu suuf si di dem di dem ci gaal gi manque d'emploi moo tax ñu bëgg nag état gën ñoo teg loxo ndax suñu mbébét daal mooy wër Sénégal fépp fu ndaw nekk rek ñu former la tey parce que nous avons formé cinquante jeunes yoo xam ni dañ leen doon jox seen ay attestation de participation. mbokki Thiès ah, ñoo ko déggandoo ah, arène bu sécurité nag wàcc suñu ba fi nga xamante ko da koo décentralisé indi ko ba nga xamante ni fii ci Thiès kaay ah, benn dëkk ñaari gaar mën nañu nag chômage gi nekk jeunesse bi góor jigéen mag ak ndaw képp ku bëgg bokk rek eh, maanaam ci arène bu sécurité formation yi bari na woote ci numéro bi 97 95 képp ku ci bëgg leeral bu gën a leer nag nga woote 77 504 97 95 kon nag mbokki Thiès ak li de mu daal di ci Sénégal la mu fa dajale mu bari mu néew mu investir ko ci naka. bu ko neexoon séddoo koog ay mbokkam mais deful loolu dafa def li wax le don de soi pour la patrie c'est-à-dire daf ko jël jëmalewaat ko ci jeunes yi organiser leen ba boo ko seetloo depuis bi formation. formation en masse bi tàmbale il a forme plus de mille et quelques jeunes parce que da ngay xool bu Patte d'Oie bi rek six cent six la waxuma bu tey bi ak yi war am au mois de de août dans des de décentralisées voilà kon nag loolu moo doon euh, mbir mi Jamra nag profité na mook Xaadim euh, structure yi mu dirigé benn institut pour la formation dans les métiers de l'économie euh, dal di signé benn convention de partenariat ça veut dire désormais moom lu mu dugalati lu mu duggati rek il verra Jamra à ses côtés parce que réew mi problème bi mu am c'est problème emploi la di gërëm bu baax aussi sama benn frère bu tudd Pape Modou Fall c'est le directeur de l'emploi koo xam ne aussi tamit combat bi mi ngi ma ciy jàppale di euh, seedeel état ni wax dëgg yàlla nit la koo xam ne franchement nit ku am taxawaay la moom it nañ ko gën a jàppale ci poste bi mu nekk pour mu mën a gën a jàppale gars yi di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous maanaam daal si Sénégal fépp rek bëgg nañ faa gën a wane suñu bopp bëgg nañoo gën a yaatal liggéey bi pour xale yi yoonu Nicaragua bi ak yoonu suuf si yoonu gaal gi bopp toog fii war nga fee mën a toog màggee fii tekki fii loolu moo tax ñu taxawal entreprise ñu taxawal